lan moo xew ba Thiès am ñu fi nekk di lacc lacc nangu Thiès séeréer si bàyyi Thiès ñeneen yore ko loolu dama bëgg yéen ñun ñi nga xam ne ñoo ni ñun séeréer si ñu jëlaat Thiès benn bunta fi nekk mooy Pamoudou soxna Mbathio dama ne li nga wax responsable politique bu mel ne Pamoudou Thiès amu fi sama loxo ca kaw sama baat ca kaw amu fi ku mel ne Pape kon yéen waa Ndufak dama bëgg ngeen jàppale Pape Modou boo leen ko deful ñu récupérer ko ci yéen lu leer laa leen wax bu ngeen jàppalewul Pape Modou ñeneen la koy jël ci yéen te yéen yéen moom Pape Modou seen doom la kon ngeen jël ko plus ko ndax ki ak sur le plan éducationnel ñu ngi jàppale xalé yi projet formation éducation man ne sais yor rel limu ci def man dafa dafa ay millions nga jël def ko ci ay xalé ñu am bac ñi am BFM ñi am entrée en sixième te mu mënoon jël alal joo def ko ci leneen mu def ko ci njàng def ko ci xale yi kon ñu kooku war nañ ko jàppale ndax am réew am réew buy taxaw ci am njàng lay taxaw alliance pour un Sénégal prospère sa gëm naa ni ñun loolu la ñu gëm moom la ñu xam ci la ñuy dox ci la ñuy yëngatu ma di leen ñaan ak yéen waa Ndofou carte ASP bii nga xam ni créé nanu ko muy sunu mouvement yéen maa ngi leen di ñaan kenn ku si nekk na jënd carte bi si téeméeri dërëm ndax jënd carte bi mooy wane sa jàppale ak Pape Mamadou Gningue mooy wane ni ànd nga ak Pape Mamadou Gningue moo koy dooleel aussi sa moom itam en revanche tey jii carte bi ku mu ko gis si yow dina ko leer ni kii nitam la kon maa ngi leen di ñaax yéen waa jigéen ñi ngeen jàppale Pape Mamadou jënd carte am carte de membre bi kon carte de membre boobu dinañ ko jox Fatou fay dinañ ko jox Fatou fay ginnaaw bu ñu santee yàlla nag di dellu di santaat di santaat di santaat ñu leen di yëgal ni financement yi ñu ngi si trente groupement yoo xam ne financé nañu leen mais 30 groupement yooyu ñu financé yëpp 26 yi c'était au mois de juillet 4 euh, autres yi semaine passée rek lañ leen financé après bi ñu financé li ma gën a neex Pa Modou ni ma nag damay arrêté financement yi balaa maa arrêté financement yi di dem feneen damay seeti samay mbokk waxtaan ak ñoom financé leen soo gisee nag financement bi tey ñu indi ko jaarale ko ci loxol Faat Fay Pape Mamadou bi mu nee bëreet dañ ko ni kuy xare da ngay yor ngànnaay sa ngànnaay li mooy carte électeur bi kon mbooleem jigéen ñi mu financé ñëpp par groupement danoo dajale seeni carte électeur andil ko ko Fat Fayit wax dëgg yàlla réunion bu nu mos a réunir moo Pape Dione teew nan fa ak Youssou Ndione ñi ñëw latim xam na ne am nañu yéene ji loolu moom biir na nañu am na nañu yéene jàppale gi loolu biir nañu mais jot ci boppam moo amul parce que su faatu excès Pape Dione egsi fa mel na ni ñëpp teew nañu kon dinañu gërëm ñëpp di sant ñëpp Fat Fay nag fa wa Ersan jaar wa Daaru Salaam jaar fa wa Cité Lami jaar fa waa Cité Senghor jaar fa wa Kër Ablaye Yaxin jaar fa waa Mbambara jaar fa waa Jàmmagën jaar fa waa Sampaate jaar fa waa Daaru Salaam 1 2 jaar fa et cetera et cetera suba ñu ngi leen di leeral ni ñoo nga jëm Ngumsaan Ngumsaan la ñuy dem suba comme ni ñu def fii suñu fa jógee dinañ dem Silma asalaamaaleykum sama sereri, séeréer yi ak sama mbokku waa di nuyu di leen sant di leen wax ni kontaan naa lool ba fi kontaan mën a yem ndaxte bi ma doon ñëw dama waxoon ni damay ñëw nuyu si samay mbokk ñëw fekke ay financement mais li ma fi fekk tey ëpp na sax meeting yi nga xam ni moom doon fekk ji kon nag jaa leen jëf kontaan naa trop maa leen di féliciter di leen encourager ci li ngeen def tey. bala may dugg nag ci wax ji damay njëkk nuyu sama du wax sama mag wax ndax na wax ndax te moo mag mais nuyu borom dëkk bi di alaaji Youssou Njoon moom sama papa maamam la sama mbokk la axan di nuyu imaam yi ma fi fekk yëpp ñi nga xam ne julli naa ci jumaa ji léegi ci jàkka ji imaam yi ma fi jotagul gis ñoom ñëpp maa leen di tàllal loxo di leen sàkk ñu ñaanal ñu ci li nga xam ni ñu ngi ciy waaj a dugg ndax yàlla mayu ci ndam may ci waa dëkk bi ndam ci may ci dëkk ci jàmm di nuyu samay mag di nuyu Ablaye Faye nga xam ne wax dëgg yàlla depuis quelque temps ñu ngi ànd ci waxtaan bi mu am expérience trop ci li nga xam ne expérience politique boo xam ni am na ko ak jàppale boo xam ni yéene na ko di ko wax di ko dox boobu ba léegi di ñaan boobu ba léegi que ma ñëw ci dëkk bi fekk mag ñu ko di boole ci nuyu boobu nag sama mag Mamadou Ñing nga mom mom moom moom laa ci di wax waa dëkk bi ne mom maag moom ñoo bokk benn papa sama rakk bi nekk ci kër ga ñoo di Daawda papaam nañ ko tuddee daali ñing ba ma duggee Thiès ci néegam papaam moom laa doon fanaan ay semaines yi semaines yi semaine maa ngi koy nuyu di ko sargal di ko wax ni que kontaan naa ci taxawaayam di ko ñaanit mu jàppale ñu ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy sumb ndax ndufak am ci ndam séeréer si am ci ndam du ma yem ci séeréer si rek dëkk bi léegi ñëpp ko bokk bien que séeréer nag ñoom ñoo daral ñëpp moo tax ma leen di tudd ku lim ñëpp dangay ngay juum mais xam la ni ñi ma joto a wax ñëpp laa ci boole. Mor Assane Ali sama mbokk opposition bi mais grawul amul problème xam naa ne dañ bokk ci liggéey bi ak ñëpp ñi nga xam ni Ablaye ñi ma bëggul tudd ñëpp daal xam leen ni am na ko xam moom moom du ko tudd parce que war na ma ni carré bi yëpp yëpp yëpp yëpp ku ma tuddul rek jàpp leen ni boole naa leen defañ naa leen ci wax ji yëpp ndax kontaan boo xam ne def nañ ko tey maag ñi ma àndal délégation bi ma àndal nag maa ngi gërëm ñëpp di nuyu ñëpp ci jiital soxna Mbaaco moom gaynde la ci liggéey bi may def mag la aussi boo xam ni ni Ablaye taxawee moom taxawe na la lu ko raw parce que daf ma gën a may fit gën na may xel di doxalit loo xam ni maa ngi ko ciy gërëm di ko ci sant li muy liggéey ci jigéen ñi maa ngi ko ciy ñaax na ko gën a continuer gën a yaatal gën a taatal ñëpp mage ñëpp di leen xelal parce que macha allah yàlla may na ko xel boobu may na ko jub boobu it maa ngi koy ñaan ngeen ànd ak moom ci liggéey bi parce que moom laa jiital ci jigéen ñi ci dëkku Thiès yëpp mu ànd ak ñoom mais dëkk bu nekk nag ak koñ bu nekk mun nañ fa samp koo xam ni moom dina ko taxawal ci dëkk booba. comme ci dëkk bii ngi ñëw tey du ñàkk ni dinañ tànn bis yi di ñëw koo xam ne ci jigéen ñi dina fi taxaw ci xale dina fi taxaw ci mag ñi dina fi taxaw ci liggéey bi nga xam bëgg nañ ko def. ànd naa nag ak ñu bari Abdoulaye Aw bi wax léegi sama mag mm, Moustapha Ñing ñoom euh, El Hadji Diop Baara Diop bi nga xam ne élèves étudiants yi nekk ci instant Daaru Salaam yëpp moo leen jiite moom it ñëw na àndandoo ci délégation bi ak ay imam ñoom Serigne Omar Dem ak ñoom lii ñu bari daal délégation bu mag a mag ànd nañ ci délégation bi di nuyu it journaliste waa Thiès ak waa Thiès 24 yi nga xam ne ak yeneen journaliste yi nga xam ne yëpp biñ ko yëgee bàyyi nañ lépp lu doon def ñëw àndandoog man ndax wone mbégte waa Ndufat mbégte séeréer si mbégte waa Thiès yëpp mbokk yi ni ko soxna Mbacke waxee léegi suñuy tànk bi ñuy ñëw seet si ay mbokk moo ñu taxoon jóg loolu it du ne tey nañ ko soog a def yàgg nañ dugg ci dëkk bi di waxtaan ak suñuy mbokk di leen seet si ni ko borom dëkk bi waxee ci kenn du yëg di ànd ak ñoom ci seen naxar di ànd ak ñoom seeni mbëkke mbégte di jëflante kee ñoom loo xam ne du lu ñuy fësal loolu donc suñ ñettee dañ fiy ñëw nekkul ni tey nañ fi soog a ñëw waa dëkk bi miin nañ ñu min nañ ma min nañ samay mag miin nañ samay rak ñun lépp lu ñu am fii moo ñu ko gënal daaru salaam gii ñu dëkk tey ci ndufag la maa ngi koy wax borom kër gi borom dëkk bi ne ko yooyu seen to suñu toolu maam la sama papa ba mu fa indi di ñu ko woon àll la woon ne ñu fii bëgg ngeen dëkk sama yaay yàqu ci dara ba ñu yàlla ubbilee ay bunt muy ñëw seet si ko ne ko yaay dañuy xool fu ñu la bëgg a tabaxal kër yàlla mayoon nañu kii macha katan kàttan bu ko tabaxee fii dëkk yi gën wante daf ñu ne sa papa fi la bëgg ngeen dëkk ci seen i dëkk tabaxal leen ma fii si kër fekk seen papa bëggoon kon nag loolu dama leen koy wax rek pour wan leen ni lépp lu ñu am Ndufa Ngumsaan Silma ak dëkk bii nga xam ne suñuy maam ñëpp lañ ko saanoo moo ñu gën a lépp lu ñu am. nit loo am ci say mbokk reconnaître ñu la gëm naa dinaa absolument rien donc ma leen di remercier ci occasion bi ngeen ñu may ak opportunité bi ngeen ñu may ñu dellusiwaat fii waxtaan ak yéen loolu nag mënuma leen a gërëm a gërëm a gërëm. ba mu doy ci man ak ak ñi nga xam ne ñoom laa àndal kon nag loolu moo ñu taxoon a jóg dox nañ ko ba mu mat dem nañ ci kër chef de village dem nañ kër ñi ngeen dem nañ ci imam ñëw nag fii jàkkaarloog jigéen ñi xale yi yéen nag yéen moom mention spéciale moom laa di dëggal Fat Faye ak Pape Ndione maa ngi leen di félicité di leen encouragé di leen wax ni fi ngeen teg seen tànk noonu la ay xale yu set loxo ngeen seen liggéey jub na su ngeen meloon neneen bi ngeen ñëwee ci man li ngeen liggéey te du ngeen ko mën a liggéey su ko mën liggéey mooy yaa ngeen doon teg seen tànk fi ngeen ko war a teg parce que xale mun na nekk xale mais su setee loxo mun na ànd ak mag mu ko neex te wan ngeen loolu wane ngeen tamit seen yaru ba nga ñëwee wax ak man dama ne la ah Pape de yow sama sët nga wala sama doom nga li nga ñëw ci man nag kontaan ci lool mais dama bëgg nga delluwaat ci dëkk ba waxtaan ak ñépp lawal fa mouvement bi nangul naa la nga bokk ci sama mouvement mais mënuma laa jiital ne tey yaa jiite sama mouvement ci dëkk ba loolu daa la waxoon ne la dëkk ba waa dëkk ba laa bëgg ñoom seen bopp ñu tànn seen njiit suñu liggéeyee ba ñëpp daje ñëpp juboo ci ay kàddu ñu xool ci ñun ku ñu doy ñu jiital ko parce que ki jiitoo ki ne ci ganam man moom laa yamale ci li may fas ni def yàlla moo bind rek ne mbooloo moo gis dina am ku jiitu loolu kese la yaatal yépp ne tàllal naa loxo waa dëkk bi yépp liggéey dëkk bi moo ñu tax a jóg xeexal dëkk bi moo ñu tax a jóg waxal dëkk bi moo ñu tax a jóg eggal seen doléance fi ngeen xam ni yéen mu leen ko fa eggale te yàlla may ma tey xëy na

ñenn ñi dañ ko jàppe ni xeebaate la wala dama fi bëggul def politique du loolu fépp foo mosoon a bëgg a dugg fii moo ma ko gënal wante foo xam ni kër goo romb sa kër mbokk la koo waxanteel su ngeen bokkul papa yéen a bokk maam foofu soo koy dugg ne da ngay wax politique na ko xoolaat bu baax te am na ñoo xam ne mun nañ féete feneen mais suñ ma gisee dañuy jaaxle ñu xam ni ñuy def kon nag il ñu yónnee message bi bopp ba pare ba nit ñi waajal ko yàlla tey la ko tudd moo tax ñu ñëw tey mais gëm naa ne ñun ñëpp ci dëkk bi ku sant fay njoon ñing mbay ak loo mun ci sant ñun ñëpp ay mbokk lañu nañu àndandoo ci mouvement bii nga xam ni samp nañ ko tudd ko mouvement bu tudd alliance pour un Sénégal prospère mbooloo ndax liggéeyal réewu Sénégal ndax mu dem ci prospérité prospérité nag nekkul ak émergence émergence tubaab moo koy wax mooy ne rek réew mi màgg na ba am na ay croissance 10 pour cent am na lii am na lii ba réew tubaab yi nangu nañ ni émergent la man loolu taxu ma jóg. li ma tax a jóg mooy sama mbokk yi nga xam ne tey suñu yeewoo bëgg dépense ni ñu koy amee su nawet jotee ñu am ay jiw su ndox su ñu buggee ndox bu set ñu am ko seen doom yi suñu bëggee jàng jàng ku bëgg liggéey ci mën ko mën a liggéey. loolu laa wax ni loolu nañu wax a def ci politique xeex ko ba politique mun a am mais ay émergence ak yooyu ñu ñu jàpp la mais dañoo a xeex ba loolu am fi mais su ñu toogee ba 1900 ba 2016 di war a dugg ci 2017 dëkk bu mel ni Ndufat nga xam ni suma mbokk tukulóor bëri di sant aw wax na ko lépp ku fi dëkk ñoo la fi ñoo la fi sanc ñoo moom dëkk bi ñu dem ba dëkk bi yépp am ay làmp am ay courant am ay école ñu dem ba du fa nekk école bu ñu tabax amu fi loolu ci yéen la du ci kenn ci waa dëkk bi loolu nag suñu ci àndee balaa ak mu jeex parce que suñu àndoo ñun ñëpp nekk benn kenn mënu ñoo euh, xaajale lu ñu wax ci ki ñuy demul intérêt personnel yéen mun nee na xanaa seen xel war na dal ci man ne jombal naa sama bopp ndax sama deret a fi ma egsi ci ak ak fi ma jaar di lijjanti ay xaalis di ko jëmle sama bopp loolu taxuma jóg mais bëgg naa bàyyi fi woy bu rafet bëgg naa dëkk bi mel ni dëkk yi ci àdduna bi yëpp mel su ngeen demee ci Matam ay Podor ñooñu gën a sori lool école yu euh, paay amatu fa ndox am na fa hôpital am na fa

président su ñu déggee ñooñu di wax da leen may gëdd parce que xam na ni ñi jàng nañu xam nañu am nañ fulla am nañ fayda te suñu deful li ñu bëgg dinañ jël a seen mbokk yëpp won ko gannaaw loolu nag laa bëgg ànd ci liggéey ndax dëkk bi fii ay at 2017 ñu tànn ay député yoo xam ne suñuy député bopp la nekkul président mu ñu koy tànnal suñuy député ñoo koy tànnal suñu bopp loolu nag loolu laa leen bëgg a wax mouvement bi na

le problème c'est pas le président de la république le problème c'est ceux qui sont derrière le président de la république le problème c'est ñan représenter les villes Et mo am et c'est pas Macky Sall le problème ñi xamone Macky bu c'est un homme intègre c'est un homme dynamique c'est un homme qui a besoin de faire des preuves même ceux qui sont contre lui sont d'accord avec sa vision prospective mais le problème

lu tax ma wax loolu parce que jàng damaa jàpp ni tey li ñu yàlla may gannaaw yàlla mi mayee xëy na jàng moo ñu ko may ci jàng boobu opportunité bi ci am mooy xëy na yàlla may na ñu chance rek ñu nekk ci dëkk yoo xam ni jàng yomb na fa ñu jàng wala politiciens yoo xa nekkoon ci dëkk yooyu xeexal nañ dëkk yooyu ba école yi bari ba jàng mi yomb ñi fi nekk it ëpp ñu leen xel ñun ëpp ñu leen juddu ëpp ñu leen dara yàlla mën na am sax ñoo ñu gën ci lépp wante yàlla may na ñu chance rek ñu jàng jàng boobu tey xëy na moo ñu may li ñu am ñu ñaan nag suñu sët yi fi nekk ñu xeex ne dëkk su amee ay ingénieur am ay docteur am ay professeur par la force dëkk boobu dafay dafay développé loolu nag pour mu développé moo tax ma ne man lépp luy jàng taxaw naa ci pour xeex ko ak yéen di ko commencé ci encadrer xale yi ci examen yi ba ñu am examen yu baree bari te soobee yàlla commencé naa ko ren daan naa ko def ci yeneen ko yi mais fii laa koy rawal lépp loo xam ni mbirum jàng la naa ci dugal sama loxo jàppale seeni i doom jàppale samay sët ba nga xam ni diplôme yi dina fi bari loolu maa ko jël solennellement engagement xaaruma ci gouvernement bi lépp lu ci mën dinaa ko def ba Macky Sall ñëw fekk ñu si gouvernement bi fekk ñu si ak ñëpp ñu nga xam ni samp ngeen léegi ñëw ànd ak ñun ci liggéey beneen bi ma jàpp ne góor ñi jàmbar lañu ñi ñi ngi ci tool yi ñi ngi liggéey ñi ngi def lépp wante léegi xam nañ ni développement kenn mënu ko def ca boole ci jigéen ñi dama jàpp sax ni jigéen ñi ah du ma wax ni ñoo ëpp njëriñ góor ñi parce que damay bañ ñu góor ma waaye jigéen ñi yéen gàcce gaalaam yéen a ngi liggéey te wane ngeen ni ku leen jox financement ngeen liggéey am ci intérêt delloo financement ci bu jub góor ñi nag wanaguñ ma loolu moo tax may xaw a teey mais yéen moom maa leen di féliciter. du ñu ubbi du ñu fay ay intérêts yoo xam ni c'est exorbitant du ñu fay ay taux de mise en place les crédits usuriers yi nga xam ni crédit mutuel la koy def loolu laa leen teggil da ngay ñëw tey ci jotaay bii dañuy bind chèque jox la ko amul dara lu ñu la laaj ndaxte woon nañ la mbokk ak mbokk wax ak wax jox la nga liggéey delloo ñu ko fii ak at loolu wax dëgg yàlla jigéen bu am jom suñ la ko joxee da nga war a mën liggéey delloo ko di ci beral loxo nag waa Ndufat di ci beral loxo waa Ngumsaan di ci beral loxo séeréer si parce que nag ñoom ñooy samay mbokk deret nag wax dëgg yàlla. loolu moom si su soobee yàlla noonu laa koy defee tey sax un million bi leen indil maa ngi wax Youssou Ndione léegi ne ko su ma sañoon mu nekk deux ou trois ou quatre millions. ci mun na nekk sax ci yéen rek la dépendre xëy na au am na ñoo xam ni gëmuñu ko woon mais maa ngi leen di ñaan. suñ fi jógee tey yéen ñëpp ngeen dem seeti Fat Faye wala ñeneen mais Fat Faye daal gën naa ni comme commencé na ko li gën a seet nga ànd ak moom ak ñeneen ngeen dajaloo ñëw seeti soxna Mbathio lu mu laaj dinaa ko mottaliwaat ba mu mat 4 5 ndax ngeen gën a liggéey dimbale seen jëkkër kon yéen xam leen ni daal maa ngi seen gannaaw xam leen ni seen càmmiñ seen maam

parce que mouvement là pour nous, ñu d'abord naka nañuy def kenen man APR il faut que ce soit très clair je ne suis pas un militant de l'APR j'ai mon mouvement politique qui soutient la politique du président de la République mais qui défend les intérêts de la population qui est avec moi ñi nga xam ne ñoo ànd ak man liñu wax lool la wax waxul parce que dew ma ci président pour wut ci lu may jox man damay ñëw waxal ko waa dëkk bi li ñu bëgg li ma jox ma indil ko waa dëkk bi ñu ànd ak moom liggéey man loolu laa bëgg maa ngi woo nag ñëpp ñu ànd ak man bañ a wax nii maa ngi opposition maa ngi lii waa dëkk bi daal na ngeen fexe ba ñëpp chef de village loolu laa lay ñaan nga wool ma mag ñi ñu toog waxtaan ba déggoo ci benn cellule boo xam ne dinañ ko dëgëral ba kuy dugg ci dëkk bi ñun lay waxal ba pare ñu xam luñ koy wax loolu su amee rek lu ngeen bëgg ngeen ko am soobee yàlla ci xam naa ni yàlla dina ko def kon nag bala may daaneel ma gërëmaat waa dëkk bi gërëm ñi ma àndal ñëpp di ñaan yàlla yàlla def fi jàmm ah man ñi nag ngi leen di déglu ci yan àndandoo ak yan dimbal lañ leen mën a defal lu tolloog suñu doolee gum mais li soxna Mbacke wax léegi moo ci am solo ak aaw lamp yi pour taal ko ba mu egg loolu du poosu nit moo koy def mais yi ngeen élire ça président c'est les maires ça n'a rien à voir avec le président l'éclairage public les écoles maintenant c'est les maires la décentralisation Amé, vous voulez attaquer le président parce que mon Dieu c'est pouvoir déléguer quoi au maire que vous choisissez il faut vous soyez un maire ñu bëgg parce que maire comme chef d'entreprise la da war a jóg jël sa xam-xam ak sa mën-mën seet say partenaire nga ñëw ci sa dëkk mu nga ubbi usine def lu neex su ngeen ma defoon maire tey ngeen xam. kon ni ñu développé suñuy entreprise moom la ñuy jàppee dëkk bi dinañ fi indi lépp lu ngeen xam ne xam nañ ko ci suñuy relation internationale te yàlla defal nañu vingt ans yi yëpp ci lañ nekk mais nag loolu pour nga mun ko def il faut nga am ndombo bu tax nga mu am légitimité pour mun ko indi loolu ni ñuy laaj ñu àndandoo ci loolu ba dëkk bi mën a soppeeku mën a jóg bu leen ci kenn dindi na ngeen ci ànd def ko loolu daal laa leen di ñaan ah di gërëmaat chef de village di gërëm Ablaye ñaari Ablaye nag loolu moom laa fi am. waaw moo tax su ma nee Ablaye ñaar ñëpp dañ gis seen bopp ci biir.